wala léegi lii boobu yaa ngi juum ñu taluñu loolu bu ko bëggoon def sax ñun ñooy génn jàkkaarloog moom ñun lu ñu bëgg mooy Sénégal ñu defaraat ko ñu sonn xoolaa seen bu parce que Sénégal métti na metti na trop barki que ku la wax ak ku la ko waxul métti na wallahi du caaxaan Ousmane Sonko loolu moo ko ñor mais leneen ñoru ko parce que président bu toog ak bu tey bu ñu jëlul senegal li si nekk yëpp Ousmane ñëw commencé à zéro Sénégal day dem barki Rasulullah loolu rek man tax a jug oui. situation nii jàpp bu ñu jëlul lépp la Sénégal lañu yóbbu yóbbaale lépp Ousmane ñëw rek toog wërsëgam lay indaale barki Rasulullah te Sénégal day nekkaat fee loolu moo ñu ñor. mais pas Ousmane bu toogee day yàpp kii yeeg kii du day rëcc taluñu ko ñun yooyu nekk suñu. léegi ñi même ñi sàcc fi mu ne nii. Euh, na dem jot nañ jël may naa la. may leen ko engagement bi rëy na loolu waay am Sénégal Ousmane nañ ñëw commencé à zéro liggéey may may naa <laughs> nga leen ko. may naa leen ko mais Alaaji alaaji euh, xam naa ni euh, faaw faw ma faaw ma tabaxal ko ji parce que yow tey ku la xam xame la ci artiste comédien euh, nga ci doon nga ci joué bu am solo déjà moo tax des fois ay message day am solo mais li dal Kouthia hmm. gis nga dégg loolu kay ñëpp ko gis ak ñëpp ci teg seen bët <laughs> <laughs> Kouthia kay ah mais nag li ko dal aussi jommul kenn jëwmul parce que dëkk boobu ñëpp ay jëw seulement problème kay ki génn wax. mais est kay que tey jii nit yi toll foofu noonu tamit waruñu di moytu erreur yooyu. waaw non mooy li ma lay wax rek ku nekk na nga xool sa diggante ak sa boroom parce que loolu moo lay war ni lépp looy def di ko nëbb yàlla mi ngi lay xool. Mhm. ay yàlla mi yàlla jéggal parce que moom li mu def bu génnee am na bàkkaar bu génnul am na bàkkaar xëy na de mais nag dañuy wax gàcce bii. Hmm? moo gën euh, nu ñu koy waxeeti sax gàcc bi moo gën sax gàcc yomal xayam parce que hmm. gàcce yomal xayam musiba la kon nag war nañu moytu mais ne ay doomu aadama nag dañuy juum parce que dañuy wàll duñuy yonent kon nag maa ngi koy ñaawlu mais li ma ci gën a ñaawlu mooy jigéen ji ko génne jigéen ji ko génne ñaawlu naa trop li ma def na wax jëfin bu sew bu bon bu xasaw mais mais yéen ñu siiw ñi tamit est tamit di warul ngeen di moytu quand même. Ah, man bokkuma ci man bëgg naa ko ñëpp ne sama audio dafa gàtt man aw ma xarit. non ko waxuma la kay jënga ko sa ah, en fait euh, comme parce que yu bare bari euh, genre yu mel nii rek la ñuy dal en fait. mais kuy def lu ñu ween xam nga koo xam ne deful dara man sama téléphone ngi nii mën naa ubbi nga xool audio <laughs> waxuma kenn lu bon defuma kenn lu bon. loo wax man lay doy na waar waaw loo ma wax si nit man la yàlla baax na. waaw yàlla dina defal lépp yal na yàlla defal lépp yal na jàmmam Sénégal man boobu wooy naa ma président Macky Sall man la yal na fi jàmm am moo ñu yilif yal yàlla dugg ci xolam def ci moom leer goo xam ne dina am kii génn baal ñëpp génn ñëpp ci kaso bi jàpp xam la ma xam man man ki nu mu dugal kon nag nit ki foo mën a toll aussi del sóoraale quoi sa bopp jigéen nag soppal tubul wóolu du da am jigéen nag lu ne nga ko parce ëllëg da kii euh, sóoraale lu bëri quoi mais ñaawlu naa ko trop aussi ñaawlu naa ko aussi Ndiaye sama jarbaat la muy ku baax juddoo fu baax am famille bu baax moom tamit jàng alxuraan nekkoon ku sell man loolu rek ma ci metti affaire yu Ndiaye bi quoi loolu rek ma ci metti affaire Amina Poté bi mais kaddu yooyu tamit est-ce que. Euh, Amina Poté tamit metti na ma. parce que responsable yu toll nii tamit war nañu. Mhm. di yëkkati genre kaddu yi. Amina dama ko xam muy jigéen ju baax. wala bu mu ko xam xam naa ku ko xam wallaahi amoon na waa joo xam ne ñàkkuloon dara moom rek la bëggoon waaye naa xam boppam am fulla am fayda mosu koo xawal ñàkk fayda waaw xam nga moto àddina dafa garaaw looy def la del def te te lii bu ko defoon du ko seedeel muy jigéen ju baax jigéen joo xam dafa taxawaay taxawaayu góor waaw mooy ñàq jëriñu sonn am fu mu jaar di jigéen ju baax tamit la xam ci moom laa laay wax de ma xam bu ma xamoon ci moom tamit ñàkk fayda damay noppi mais ku baax la ku sell la wax dëgg yàlla koo xam ni xam naa ñu ko xam fréquenté naa ko xam naa ko parce que bu nekkee jëppal sa yenn saa dafa daan ñëw boobu am ak sama jabar a nekkoon foofu mm-hmm. dafay day ñëw ñu toog attaaya ba kii xam naa ko daal li may wax daal mm-hmm. kon nag lépp luñ ko mën a wax man gisuma ko ci moom quoi yal na ko yàlla jàppale rek xam ne àddina moom noonu la quoi xam nga d'accord d'accord alaaji alaaji looy looy daane lay kàddu yu mujj waaw li may daaneele di nuyu Birame euh, Birame Souleye Diop mu nga xam ne moom mu ngi ci cees di aussi di liggéey taxawaayu taxawaay bu rafet